ci wàllu xibaar ba tey ñu wax ci bureau sénégalais des droits d'auteur ñoom lu toll ci ñeenti tonnes ci ay CD ak i cassette ci wàllu piraterie taal nañ ko ci teewaayu directeur bi ñu dénk bureau sénégalais des droits d'auteur di Mounirou Seck Cheikh Abdou Khadim Mbacké Seck moom moo ko woon ak Aliou Diagne. quantité bu bari ci VCD ak DVD moom la ñu def dóom BSDA di kuréel gi xeex piraterie ak waa brigade de lutte contre la piraterie et la contrefaçon lakk nañu lu toll ci ay tonnes yu bari ci xeetu produit yooyu pirate yooyu li ñuy def ñoom jàppee nañ ko sàcc. tey artistes yi perdre nañ salaire ci lii ñuy lakk nii ci ñi nga xamante ni contrefaçon la maanaam liggéey loo xamante ni yoon mayu la nga def ko mu nekk nag euh, firnde que lëkkaloo bi police national lëkkaloo ak BSDA pour permettre que artistes yi créateurs yi vivre ci li ñuy liggéey lii lu koy mandargal la. li ñu jàpp toll na si ñeenti tonnes waa brigade boobu xamle nañu dinañ dakkal li ni mel. kenn du dem xare nag di wone naan nii laay def ak nii laay def en tout cas ñi nga xamante ni ñooy jaay euh, CD yi nañ taxaw te xam ni fu ñu mënti nekk ci senegal Sénégal dinañ leen fa fekk. parce que ñun loolu mooy suñu liggéey. ñi yëngu ci wàllu aada bëgg nañ loolu ci xeex bi waaye suñu sañoon ñu soppi lakk gi ñuy lakk produit yooyu. leen li nga xam ne ñu ngi ciy xalaat mooy dafa ñëw fii di ko lakk parce que lakk bi moom du li gën mënta ñàkk nag mais du li gën. bu ñu sañoon daal ñu ngi réfléchir ci beneen solution peut-être recycler yi def leneen daal lu toog di ko lakk parce que ñaar boo ko lakk ay œuvre la ñu lakk même bu dee ay œuvre yu ñu sàcc la ay œuvre la quand même donc lakk bi du li gën waaye mënta ñàkk bu mënta ñàkk moo tax ñu koy def waaye ñu ngi xalaat ci leneen beneen solution bu dul lakk ko. brigade boobu jàpp na 366 nit ci diggante 18 août 2012 18 août 2010 ba 12 septembre 2012 donte liggéey bi am na ay jafe-jafe.